Euh, wala wala Xavi nga xam ne ñoom bu bal bi jubsee ci ñoom. dañ koy amoo dañ koy dañ koy dañ koy réceptionné wane ni. vraiment aay nañ moom soxlawul loolu parce que il n'est pas joueur donc je pense là ngay bëgg a arama ngay bëgg a dee ah, la yemoon la la ndaw la ma see wax. yow ngay présenté sonko sonko. lu bi newul ci politique bi kese man waxuma kii de. ngay sonko sonko lu. man waxuma ak lii Sonko Sonko lu bi laa wax. nekkete oh, waaw. waaw Moussa kañ nga nekk ragal. ah kay waxal. Ah, yow procureur kay euh, waxal yow. kan mooy Sonko Sonko. yow de am nga kër 80 xam nga ko yow. dana Pape ah. dëgg taxaw waxoon eh, bi. yow kii fi mu taxaw di eh, yow <laughs> ma ne non gars yi chef de l'état waaw non gars yi séré wuñ ko ma ne ma ne ak dégloo s'il vous plaît ak dégloo ngeen baal nu rek waxtu wi dafa xat ngeen déglu ngeen baal ngeen baal nu waxtu wi dafa xat dafa guddi dafa guddi quatre heures du matin ba tey nu ngay xoole ngeen baal nu sérieusement baal leen nu rek quatre heures ba tey nu ngay xoole jàpp leen ci ngir yàlla nu ne nu ne nu ne kii di président Macky Sall ma gis photom bi bu rafet bi ki kilifa bu mag yónnee na ma ko sànq ne ma xoolal sa waaj ma ne ko ma ne ko nag président bu defee sport wàcc ndax ndax moo dee président bi nga xam ni moom na yàlla may mu teg le cinq trophées continentaux. ah quand même. Ah bu def def sport. la la la yàlla moo ko dogal ci ayam ci histoire loolu la ñuy bind. waaye ci ayam ba xaaral waaye ci ayam. na mu gàddoo cinq trophées continentaux Sénégal moo di réew boo xam ne xale yi dañoo teg cinq trophées continentaux te xale ya ko war a célébrer célébrer wuñ ko. xale yi dañu fa bàyyi trophée di jël gaal di dem. di rey seen bopp ci géej gi di dee ci géej gi. donc le sport du président symboliquement humainement c'est bien mais man bi subir ne sport ba mu nga xam ne yàlla jox na ko mu di ndam ba kawe moom sax jëriñëwu ci profité wu ci.

non waaye waaw bii daal mën naa ci commentaire. mu indi kanam. nga ne siis lii nii la sant mu indi kanam waaye. ba baax na. wax ci bëri nga wax ci bii. non bii daal bii daal mën naa ci commentaire. bien nag. bien nag. mais yow nee na nga def defi Abdou loolu la wax. mais kii nee na président dafay sonko sonko loolu nga gis. moom xalaat la. Oh, c'est-à-dire. Eh, c'est-à-dire <laughs> Pape Moussa Pape Moussa moo toog. Pape ne président dafay sonko sonko. mais waaw day sonko sonko lu koy. non man man man man. <laughs> xam nga mais mais il l'a pas dit. def sonko def mu def. waaw mais xam nga xam nga euh, man li ma bëgg a wax c'est-à-dire yéen ci sport ngeen yem man ki ma gis nii jàpp na ceena na suur na mu ngi lekk mu ngi naan mu ngi nelaw man léegi boo mu xoolee. te ñu lekk ñu ba suur. naan man biiru cere ak la am. ak may nga ba xam naa su ma yeggee sama booy étudiant yi ji may ma ñëw Pa Moussa Pa Moussa may ma ñëw beneen bi dafa am lu ngeen seetluwul. élection bi mën nañ ci toog di ci waxtaan ba suba. Eh. soo gisee sax. coow li bëri nii parce que dañu amoon bi bipolarisation bi nga doon wax Macky sàll woon ak Ousmane Sonko Macky malgré lui génn na ci génnu ñàkk pexe boo xam ni gënalu ko mhm. parce que pour man dem na ba sës ki leen doon déranger moom nga génn nii mu Ousmane Sonko mais tey est-ce que jéem a génnee Ousmane Sonko ci système électoral Sénégal taxul nga génnee ko ci système politique parce que Ousmane Sonko bu xewoon suba ne maa ngi ci daam wala daam teewal na ma daam raxas gaay Ousmane Sonko takk ndeyram moo xam fu ñu ko mën a dugal ça veut dire sortir Ousmane Sonko du jeu électoral ne veut pas faire dire sortir Ousmane Sonko du jeu politique beneen bi nag beneen bi le sport c'est bien euh, xel mu sell ci yaram mu sell waaye ñun sport bi ñu am ñun baadoo lay barke alxuraan mooy daw dépense gaz bi jeex na ceeb bi jeex na yaay feebar na xale na ñun daw dépense lañ nekkee moo tax <laughs> bàyyi ma <laughs> jabar dafa seer sax léegi jabar daa yokk. daa seer ay état ay Samba Ndiaye. léegi jabar léegi jabar balaa na ngaa takk yëg nga. président layam layam. waaw président layam layam. yoonal woyofal. ah daal liggéey man sax may jóg dem merci beaucoup. jóg nañ kontaan nañ. ah Passman. ñu bàyyi la rek sa kàddu gu mujj. ayca waaw jërëjëf ndégoo joxe ndégoo. d'abord dama leen di gërëm. sant leen yéen ñëpp ndax wax dëgg yàlla. Ah, li taxoon ma départ ñëw fii bokk ak waxtaan wi rëccuwuma ko. parce que man ah, seen émission bi ah, style bi bëgg naa ko parce ambiance bon enfant la quoi c'est-à-dire que dañuy waxtaan lu am solo mais du tee nit ñi dañuy relax. Mm. amul benn pression bu ñuy dund dañuy dund li Sénégalais yi nekk ci kër yi. tout def maanaam parce que booy def dara pour ay nit da nga leen di nuru. je confirme kon seen émission bii dafa nuru Sénégalais yi cest à que da ngeen di fekk Sénégalais yi li ñuy def ngeen fekk si leen ci. parce que boo demoon tey jii ci kër yi reer reer ak yooyu di toog di leen seetaan nii ngeen def la ñuy def. ku nekk di wax xalaatam ñuy reer kee jóg dem naan ataay ñëwaat et cetera xel li ngeen kafe et tra tour naa fi café gi sax <laughs> donc ndax reetaan gu ma reetaan xaw ma lu euh, kële waxati euh, paasen ba ma reetaan fi ba tour café gi ñu taabu ah, donc loolu moo am aussi ci kër yi bañ la yaa ngi tour café gi ci kaw moquette bi et cetera donc ni nit ñi di dundee loolu ngeen def te loolu ma je trouve que dama leen ciy félicité di ñaan aussi candidat yi ñu ñemee ñëw xam tax parce que loolu mooy tax peuple bi mën a comparer. Eh, affaire bi du ay affaire de ay man candidat laa boo xam ne am naa xaalis damay wër di séddale damay dem di jox ay promoteur damay dem fee et cetera mbir mi du loolu. c'est-à-dire da nga am ambition jiite Sénégal waroo nangu candidat boo xam si dañ laa boot rogganti la. Hmm. da ngaa war a dëggal sa bopp. ñëw taxaw wax ak sénégalais yi ñu dégg. Hmm. te nga bañ a tànn ay émission yooyu dem. parce que man pour man dans la contradiction ci nga mun a wane sa talent. xam nga su da nga dem ñu lalal la basan dem ci émission bu ñu la lalal basang hmm. sur les questions qui fâchent kenn du la ko posé soo defee ay erreur de communication kenn du ko relever hmm. mais plateau boobu dafa yomb mais soo demee ci plateau boo xam si kee day dóor génn fële kee dóor génn fële mais loolu boo ca wonee talant hmm. day yokk sa maanaam boobu mooy sa intérêt maanaam plateau bu mel nii candidat bu fi ñemee ñëw day yokk ay chance am parce que sénégalais yi tamit dañoo bëgg dénk seen réew koo xam ne am nañ ci moom yaakaar dañoo bëgg dénk seen réew koo xam ne am na ay compétence je confirme parce bëgg ñoo jiite ñun ñépp ci ay tappale ba jot réew mi kooku amul jàpp naa ni loolu moo tax yéen ngeen def nii c'est une tribune parce que Sénégal amuñu euh, amuñu culture débat comme aux États-Unis nga xam ne les candidats dañuy def débat présidentiel amuñu ko également comme en France nga ñoom it dañuy les candidats dañuy def débat présidentiel ba ci deuxième tour bi day day am débat ñun nag loolu bu ñu ko mënoon organiser peut-être parce que conditions yu réunirul wala et cetera mais suñu amee des émissions yu mel nii pour man c'est une excellente chose pour que candidats yi mun a ñëw ñëw wax seen xalaat wax seen gis-gis parce que man jàpp naa ne yéen vous donnez l'occasion aux candidats de donner leur avis parce que man dañ dinañ la challenger poser les question et cetera mais dinañ la permettre nga wax li nga xalaat donc te fii certes du fooy ñëw ñu jox la temps nga wax sa programme yëpp parce que émission bi du pour loolu mais mun nga dégager les les grands les grands axes du programme ba nga xam ne yow sénégalais yi lay seetaan daan ne ah waa ji kët am na ay Euh, am na vision bu muy porté. effectivement loolu mooy tax mu mën a déterminant dans le choix. tout à fait di participer la démocratie au Sénégal donc maa ngi leen sam di leen ci gërëm. leen wax ne li ma fi wax. Euh, lu ci lu ci jub yàlla subhaanahu wa lu ci dëng man nit kese laa mais maa ngi nuyu euh, internetu sans limite yëpp. di leen wax ni wax dëgg yàlla am naa mbégte. ci li ma fi ñëwoon ci débat bi c'est un débat de haute facture vraiment les chroniqueurs ont joué leur leur Euh, man aussi en tant que euh, candidat à la candidature à l'élection présidentielle du camp anti-système contre le camp du système donc jàpp naa ne yéen it jàpp naa ne li ma fi wax euh, lu ci bëri leeral naa leen ko par rapport ak man samay conviction ak lan mooy suñu vision ñun la camp anti-système hmm. ñu dem nag war ñu permettre ñu bu ñu génne suñu suñu camp benn joueur nan ñu bàyyi suñu camp présenter ay candidats ñoom it seen camp ñu bàyyi leen ñu présenter seen i candidats ñu dem sénégalais yi tànn kin bëgg a tànn. mais ñëw taxaw teg say candidat yow système bi. Hmm. ba noppi yéen camp anti système bi man maa leen di wax. kuy bokk wala sax am ñuy wax ne possibilité kenn du bokk ci yéen. loolu ku ko bëgg a def Sénégal fitna nga fi bëgg a yee. te loolu nag ñu ngi ko def kon nag la camp anti système veut que tous les candidats du camp anti système. soit prêt le camp anti-système réclame son capitaine. dama ne voilà le camp anti-système dafa bëgg. invité enseignant. kenn le camp anti-système dafa bëgg. candidat yi nga xam ne ñoom la am yépp du ñuy xëccool moo leen di éliminer. nañ bàyyi ñu dem conseil constitutionnel. conseil constitutionnel moo mën a éliminer kuy bokk ak ku dul bokk. même ci troisième mandat bi loolu lañ doon wax. ne Macky Sall conseil constitutionnel kese kese. moo mën a tax mu bokk wala mu bañ a bokk. kon lañ doon wax nag tey lañ leen di rappeler. seul le conseil constitutionnel. est habilité exclusivement. à dire le droit et à diir qui sera candidat. et qui ne le sera pas. kon nag bu ñu fi éliminer kenn loolu laa bëggoon wax di sant ñëpp. donc daal daal émission bi ah, franchement bu amee niveau bi mu am. suñu kilifa. beaucoup <laughs> aussi beaucoup non non non il faut que ñu rendre ko hommage. waaw waaw elle a été formidable. parce que benn parce que parce que man arab man nooy nooy gérer sa chroniqueur yi non non non non non sax moo tax ma koy rendre hommage. non sérieusement noo koy gérer. man loolu ma jaaxal. parce que y a plusieurs profils différents. voilà ni mu la gérer rek la ñu gérer. voilà sa chroniqueur yi ku ci nekk ay caprice. ku nekk ak profil mais tu les gères et puis tu les gères et puis. xoolal tu les ah, gères avec c'est vraiment tu mérites des félicitations. c'est ça looloo tax looloo tax vraiment ñu koy rendre hommage. ñu koy rendre hommage c'est une dame de fer c'est une femme très digne notre kilifette Ndeye Arame vraiment bravo merci beaucoup donc di jox rendez-vous comme ni ko daam waxee euh. di inviter tout le monde tout à l'heure bi ngay bi ngay lim euh. les candidats anti-système man xam naa am na koo xamante ni aussi il en fait partie euh. il se nomme Déthié Fall. waaw c'est quelqu'un boo xamante ni il est anti-système et il est très intègre. donc ñu ko fi xaar moom tamit mu ñëw toog. un soldat. kon Déthié donc Thierno Alassane Sall. ñu ngi lay xaar. donc ngi lay xaar. jërëjëf man arab dàq na bi may doog commencer donc. <laughs>